asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ci Asfiyahi TV ak Ovision tey ñu ñëw ak ci beneen numéro wu découverte tey ñu ñëw pour découvrir bergerie Cheikh Ahmed Tidiane Chérif nga xam ne suñu bergerie la bergerie Asfiyahi la loolu donc ñu war a ñëw découvrir sujet yi découvrir espace bi nga xam ni vraiment lii raar na ci espace euh, élevage nga am ay

waaw jërëjëf euh, man maa ngi tudd Mouhamed Diallo. Mhm. donc nekk euh, bergerie Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Mhm. mais en même temps nekk directeur u Metal Art Sénégal. Mhm. di benn entreprise sénégalaise boo xam ni day won yëngu ci wàllu ferronnerie moderne. donc ñun concept bi ñu indi mooy dañu boole entreprise et élevage. parce que boo xoolee éle euh, bergerie bi. ci biir entreprise bi la nekk ci sama watu bureau la nekk donc mu nekk ñaari passion yoo xam ni bokkul mais acteur bi nga xam ni moom moo koy dund dafay am impact bu muy def ci mom d'accord kon ñuy wax ni da nga boole de l'utile à l'agréable à l'agréable agréable waaw. d'accord accord donc loolu la waaw. d' accord sa sa jaar-jaar ci élevage fan la commencé yaa sogo soog door wala commencé won nga bu yàgg. wa élevage dak bon yàggu ma ci yàgg yàggu ma ci parce que boy xol euh bi ma ko commencé ba léegi matagul 2 ans 3 ans. ok wa parce que élevage tamit dafa nek lo xamni meus na nek dafa mës nek suñu passion. Mhm. mais niñ ci duggé ci laadum yi xam nga élevage laadum dak dafa xawa spécifique. wa biñu duggé nak ba dugg ci loolu loolu moom matul ñaari at waaw parce que quand euh, dafa nekk loo xam ni passion la mhm. mais boo xoolee turu bergerie bi dafa am lu ko indi parce que boo xoolee bergerie bi sama doom buñ tudd Cheikh Ahmed Tidiane Chérif laa ko tuddee uh-huh. mu nekkoon xale bu bëgg xar mais malheureusement yàlla jëlee ko fi oh, moo tax bi ñu demee rek ba formaliser ne dañuy def bergerie ñu jël tur bi tuddee ko ko macha allah waaw pour rendre ko hommage ci loolu macha allah vraiment ñu ngi lay masawu ci loolu tamit hmm. bu baax jërëjëf ñu mel ni aussi côté communication hmm. yéen a ngi bu baax à travers les réseaux sociaux hmm. nous mu la nu la communication parce que gis nañ sax ay chaînes étrangères yu ñëw defal la interview. waaw waaw dëgg la xam nga loo gis rek euh, communication daf ci am solo. Mhm. parce que comme que ñun euh, suñu métier euh, man excellence marketing laa def. bon am une expérience nag boo xam ni dara ak lu may def. parce que man pendant 20 ans j'ai été cadre à la Sonatel. Oh, nekk fa di liggéey nekk chef de projet. Mhm. nekk di def communication digitale. mais en même temps di piloter ay projets numériques donc moo tax expérience boobu daf ñuy topp ça bu ñu ñëwee itam ci élevage bi dañu gis ni élevage am na ay innovation yoo xam ni war nañ ko ci mën a indi comme li nga wax élevage amul tanki, ginnaaw tànki kanam la am te élevage ku ci ñëw rek boo yokkul da nga wàññi mm-hmm. waaw moo vraiment ñun ci lu ñu xam dañuy bëgg à chaque fois di inspiré wu ci suñuy connaissance pour mën a am ay innovation yu ñu ci indi bon volet communication bi dafa am solo parce que tey boo xoolee yéen seen liggéey mm-hmm. bu dul woon élevage du ex fi mu egg motax ñun côté digital bi dañ ko gëna dañ ko gëna mettre en avant wa parce que bo xolé plateforme yëpp dañ ci agir donc lool mo taxone chaîne yu melni BBC Afrique mhm. ragné ñu via Facebook mhm. vraiment gis concept biñ développé ñom tam ñu ñëw fi def interview bu am solo ak Sidi Ndaw ñu ngi koy nuyu mhm. euh au passage mu nek lo xamni da fay yobbu élevage à l'international ah, donc mo lay won communication ni mu amé solo wa moo tax ñun vraiment suñu page yi dafa dafa dafa dañ koy animer tout le temps mhm. pour wane sujet yi pour wane innovation yi pour wane environnement bi nga xamni ni lañ ñi nek di denc parce que environnement bi mom wane na carrément l'élève mhm. ci cadre ci cadre mhm. ak aussi côté décoratif donc da nga bolé comme li ma doon wax sank l'utile à l'agréable ci est yëngu nga le ko def ce bergerie vraiment mu nek concept vraiment bu rafet. Mhm. boy novembre mhm. tay sujet yi tay numu mu da nga def ay recrues wala présenter ñu box bi par exemple. wa bon parce que sujet yi. Mhm. euh boy xol ñun biñ ñu ci élevage dafa am lo xam tay euh dama ni en fait amna lo loo yow jarul ngay recréer la roue. Ah, parce que élevage bo xolé historique gu élevage dafa am ñu ci liggéey nag. waaw dafa am ñoo xam ne ah, dañ leen waaw waaw dafa am ñoo xam ni. ñoom ñoo tax ba élevage egg si fii. moo tax tey. booy dugg ci élevage mën na yomb mën na bañ a yomb li tax ma ni mën na yomb man boog bi ma ñëwee dama ni damay commencer fi nga xam ni gars yi liggéey nañ ba pare parce que ay produits yoo xam ni ay produits finis la de qualité mhm. pour man dama ni ci yooyu laay dem jëli pour nga mën a àndax jamono ak élevage parce que bu fekkee yow da nga bëgg liggéey bi gars yi doon liggéey dix ans nga commencé waat ko loolu du njëriñu élevage donc ñooñu ñu ngi leen di delloo njukkal mhm. vraiment ñu def ay recrutement yu ciblé nag yoo xam ni dañu xool ñi nga xam ni vraiment ñu ngi fi am pas-pas ba générosité parce que mm-hmm. éleveur yi solidarité mo am donc ñu dem ci ñom ñu jox ñu conseiller ñu nee nañu sujet bi ak sujet bi ñu déglu len vraiment ñom tamit ñu ñu donc motax ñu ci tudd ku melni Samir Younis mm-hmm. nga xamni sama dekkendo la lu euh, def lu liggéey am solo ci élevage wa mom Nous ñu ñëk jox sujet ku melni Tafa Diallo je pense que ñëpp xam nañ ko wa mu nek nit ku am valeur ko xamni nek na ci élevage apporté ci tam ku mel Cheikh Tidiane Mbaye nga xamni mom vraiment euh, force tranquille la moom li muy liggéey ci élevage base bim ci am vraiment ñëpp war nañ dem gëstu ko Pas parce que tay tey boo xoolee moom jox ma ay xar yo xam ni da ngay xam ni xar yi du xaru caaxaan xaru qualité la voilà xaru qualité la macha allah macha allah mm-hmm. donc box bi mom xool euh, ki taxaw nii mom moom Cheikh Tidiane Mbaye bi ma lay wax jox mu xar bu doy waar femelle bu mag mm-hmm. bu am dayo waaw parce que boy booy do doomu terminus la ak Mickey ok waaw te vraiment boo waxee terminus ak Mickey loolu jeexal nay wax. waaw donc comme que dañ jënd nag maal boo xam ni foog nga utal ko ay jabar. moo tax ñu ne ci loolu dañuy commencé ci femelle bu mag. boo xam ni moom au moins. Mhm. boo leen boolee ñoom ñaar dina am ah, dara. macha allah sujet de qualité la moom. waaw waaw kii mhm, moom. macha waaw kii vraiment euh, ñaari waaw ñoom ñaar. Mhm. wax dëgg yàlla ñu def ci suñu trop trop trop. macha allah yàlla nyar ndaxte ñoom ñaar tamit Tafa Diallo moo ko jox. waa grand Tafa Diallo mu jox ñu ay sujet de qualité Wa, waaw vraiment jox ñu ay sujet yo xamni comme dirait comme dirait Abou c'est de belles bêtes wa c'est de belles bêtes vraiment yo xamni man xamna ni bëgg na leen parce que même bi ma koy jox hmm. da ngay sentir ni nit ki mu ngi joxe lu mu bëgg wa donc élevage lool la boy joxe tamit vraiment da ngay joxe lo xamni wa qualité la bëgg nga ko wa donc lu ki nga gis ni jeune mâle bi nak mom moy transfert bu ñu mënu def te indi ciow bu bari si gis naa ko man oh, gis naa vraiment. waaw waaw waaw moom la gis nga ko moo nekk nii. kii doomu kii mu ngi ci 3 mois mu ngi doog a fer nii. kiki kii doomu doomu capaacoli la waaw doomu capaacoli la capaacoli bu Sidi Ndaw voilà donc ci Cheikh Tidiane Mbaye lañ ko jëlee moom laa lay wax nii rek wa presque jënd nañ maal boo xam ne ñëpp ñu ngi koy tudd mooy Ramdaan mais tamit li tax ñu jënd doomu bi mhm. parce que ñun ñu ngi préparer relève parce que tam pour man dama élevage dafa vision mana waroo ñëw toog ci sa production actuelle rek mais tey war nga tey ma Ramdaan mii su wàccee ay doom yu jigéen déjà utal nañ ko koo xam mom mo len di mo len di yóbbu incha moo leen di croiser mm-hmm. inshallah mm-hmm. ñu am ci yaakar trop parce que yaayam vraiment euh, dafa bax fi mu bokk dafa bax te Cheikh Tidiane bay yée nañu jël ñu jox ko vraiment pour ñu améliorer suñu suñu production kon maanaam am na pédigré bu bu wóor waaw am na bu wóor vraiment parce que capaacoli moom xam nga ni film na ñëpp a ngi xaar ay doomam sa Sidi Ndaw jënd na ko mhm. di ci war a def production bu mucc ayib donc ñun pour ñu ne balaa loolu di génn sax nañ dem anticiper mhm. dem uti benn doomu capaacoli ñëw teg ko waaw parce que ñun loolu la ñuy liggéeyee quoi ah macha allah mbote bi itam ngay gis euh, moom mu ngi film ne am na di jours defe na ah oh, macha allah doomu naar bi la non kii doomu Ramadan bu tafaa jàlloon la ah, ah, waaw parce que mbote bi ñu ngi ko tuddee soleil de minuit mu ngi judd minuit ah, Varne moo ko jox une belle une belle agnelle bu c'est une belle agnelle voilà qui mooy yayam yaay tamit bi moy première portem oh. waaw yaay ji vraiment nek tamit euh, waaw qualité bu doy wa femelle d'excellence la motax tax gis nga mo lay wan ni éleveurs yi dañoo parce que Tafa Diallo bimu fi ñëwé gis ko oh machallah dafa ñëw gis ko rek néma ki indi ko ci Ramadan mu tepp ko ci oh. Ramadan mu tepp ko kooku yéene la waaw vraiment te sonuma ma ci sax moko jël vraiment ñu yobbu ko kërëm mu tëbu ba confirmé mu ma koy doog a indiwaat donc boy xol semaine passée bële la ñu wàccal li nga xam ni moom même Tafa Diallo bi mu ci gisee daf ko kon daf ci kontaan macha allah waaw mu ne ma waaw ku baax la vraiment moom jàppale ñu trop vraiment ngi ci loolu mhm. ci li nga wax noonu am na éleveurs yoo xam ne xam nañ leen ci mbaax googu mhm. te mënuñu see bañ a cité ku mel ni Siré Siré Jakite Siré Jakite waaw kooku sama frère la waaw sama frère la Siré moom vraiment Siré bi may doog a ubbi bergerie bi uh-huh. daf ma woo personnellement vraiment félicité ma Encourage, ma lu ligue. bi. Mhm. wa kon mom vraiment mom kuy wax rek dang koy citer en exemple. wa ba pare tamit ma jeune frère am mu fi di xol donc xam nga donc xam nga lolu mom nit bu la ko rek la vraiment ku la président Abou nga xam dara vraiment nañ. Mhm. depuis bima Sonatel. ton mhm. nañ moom tamit vraiment euh, dañuy échangeante ba récemment sax mhm. am na euh, vraiment événement bu mu organiser ak 2S. waaw waaw waaw mais malheureusement ak. Euh, décès euh, Omar bi vraiment. ci la ko repousser mais Aboukan personnellement daf ma envoyer demande de sponsoring te man tam ma nangu ko. donc ñom ñep dal vraiment ay relation yu doy war la liggéey ak ñom demande de sponsoring bi man vraiment mu envoyer mako ko ne ma vraiment dama bëgg sa entreprise ñeu sponsoriser bok ci li nga xamni événement bi nga xamni mom lay def. donc ñuy échanger tamit ci ay projet yo xamni sax. waxaguñ ko futur parce que mom bi mu concept bi mu indi mhm. dafa ma ni max yow foog ñu tok ñu waxtaan parce que mom chaque fois rek ci projet élevage lay nek donc max abukan inshallah dinañ liggéey ci lolu pour mëna xam tamit naka la ñu déjà ci la nekk sax mais naka la ñu gën a mën a indi collaborer pour indi ay innovation ci ci élevage élevage Sénégal foofu la toll di profité aussi mhm. di jaale vraiment ak lu élevage yëpp président Omar Sow mhm. mu nekkoon nit ku baax mhm. ñu koo xam mais nit de par say action rek mën xam nit ku baax na donc ñi ngi koy jaale monde élevage bi yëpp donc mën nañu war xool yeneen xool yeneen kii bi waaw yeneen box

lépp lo xam aliment de bétail la mom moko jox éleveur yi mais en même temps nek ci sujet de qualité nak waaw ah, parce que ku la jox ku melni ni ramdaan mhm. kooku ginnaw ginnaaw ba pare bi ñuy jox ramdaan nak vraiment mu joxaale ñu ki légui nak ki mom moy premier doomu ramdaan ci gétt gi ñu tuddé ko Café Touba wa donc vraiment mu nek euh, xar bo xam ne am nañ ci yaakar trop parce que fi mu ne mhm. amagul 3 mois mu ngi tollu ci 2 mois et demi macha allah donc mom bo xolé rek di nga xam ni euh, moko moo jur parce que mhm. dafa indi indiwaat dardaas

kon añel yi nag yu ndaw yi. waa añel yi ñoom booy xool ñoom femelle bu mag bi lañ àndal. ok waa femelle femelle bu mag bi. donc euh, moom biñ ko jëlee. Mhm. Euh, ki ñu ko jox dafa ñu ko joxaale ñaari añel yi nga xam ne dañu ànd ak moom. parce que añel yi ngay gis nii seen papa doomu abu trika la. voilà mu ñu nekk tamit bon Aboutir Ka moom boo ko waxee xam ni maal bu maal bu doy waar la voilà donc ñu ànd femelle bu mag toujours rek parce que ñun dañu newoon dañ bu ñuy jël ramadan rek nañ ut ay femelle yu mag waaw nañ ut ay femelle yu mag donc keneen ki ngay gis nii waa kii doomu doomu doomu global la global nekk benn maal boo xam ne tamit ku ñuy wax buuba moo ñu ko jox nekk parcelle. moom fi ne nii vraiment ñëkkoon euh, na am benn portée mais malheureusement doom ji dafa dellu. waaw moo tax tak fee fi ne ñu defal ko traitement ba pare. mais moom macha allah allah parce que tam xar yi parfois ñun dañu ne euh, dañuy xool li nga xam ni moom moo logique. parce que fi ne am na ñoo xam ne bi ñu nekkee traitement dañ leen isolé carrément. parce que tam xar yi jarul nga incha allah moom dina ñëw. parce que booy xool sax moom dañ ko sélectionné pour yóbbu ko système bi. parce que xar bu ñëpp bëgg la. waa xar boo xam ni la amagul joxeegul ay preuve am nañ ci nañ ci yaakaar quoi. incha allah voilà donc. mais vraiment am mhm. yoo xam ni vraiment c' est de c' est de vraiment c' est l' avenir quoi. c' est l' avenir voilà macha mhm. njool nañ. maal bi tamit mën na leen compléter lu bari. waaw ah macha allah macha allah. jàll ci beneen box daa mel ne fii ay jeune mâle. waaw fii moom ay jeune mâle moo fi nekk <laughs> moom ay jeune mâle ñoo fi nekk. kii culul la waaw kii euh, jeune mâle bi doomu supersonique la. Samir waaw bu Samir Yunis. mu nek ko xam amna 6 mois fi nek dak euh, mal jeune mal bo xam ne dañ ci am yaakar parce que supersonique ku xol production bi mu nek di def ni rek. di nga xamni amna lu mu indi ci élevage tamit. Ah, ci côté jigen comme ci côté góor. wa donc mom yaayam doomu magistrat la moo nekk fële. doomu magistrat boo xam ci abukan la nekkoon. ah président waaw donc vraiment ñu croisé ko ak supersonique. Samir Younis joxoon mako parce que bo xolé comme li ma wax ci sa Tafa Diallo rek Samir tamit bimu mu dafa ma jox doomu magistrat boo xam ni moom ci abukan lu ko jëlee woon ba pare tëbul ma ko ci supersonique doog ma ko jox macha allah donc xam nga loolu moom vraiment waaw loolu moo tax ñuy am ay yii rafet na mais bu noir bi tamit kii waaw waaw kii nag moom moom mooy suñu star fii waaw macha allah kii moom eh. <laughs> kii mooy star bi kii moom day def bruit moom moom éleveur bu fi ñëw danaan da koy yóbbaale Wow, ce que waaw démb rek je pense sama frère Cheikh Aydara ñëw na fi. ah grand Cheikh waaw kontaan trop waa alxuraysi ne ma ah kii moom vraiment. Euh, ñëpp ko bëgg parce que moom boo ko xoolee. li muy dégager dafa bari dafa garaaw dafa garaaw waaw parce que moom euh, vraiment am nañ ci espoir trop. amagul sax 5 mois mu ngi nekk ci 4 mois 4 mois et demi. donc moom booy xoolee yaay ji nag doomu all black la. waaw waaw waaw donc boo waxee all black di nga gis waaw da ngay gis robb bi day hmm, feeñ. papa ji mooy baax yaay baax yaay doomu addiya. Euh, donc moom li ko composé nag dafa xaw a doy waar nag waaw <laughs> li ko composé mais grand yow ku lay <laughs> yi moom xam nga man moom su ma ñëwee damay xool ñi nga xam ni mhm. vraiment ay xar yoo xam ni la man neex nañ ma parce que man boo nee ay addiya ne ay all xam nga wax ay xar yoo xam ni daal da ngay xam ni ñii mhm. war nañ la mën a indil dara parce que xar tamit bon am na éleveurs yu bëri yoo xam ne mën nañ am xar te du leen neex mais xar na la neex ba pare ligne bi nag bu fa nekkee nag day gën a neex waaw moo tax genre xar yi kii hésité wuñ sax kii bi ñu ñëwee xool fi mu bokk rek lañ ko jël waaw kii tamit Tafa Diallo mooñ ko jox vraiment macha allah voilà donc mu nekk koo xar boo xam ni am dafa am sax personnalité waaw dafa dafa am punch waaw vraiment ñu am ci yaakaar trop ñoom VAR tamit ak ñoom may maas xam ni xam li ñu yor tamit valeur la valeur la waaw vraiment ñoom gis nga li ñuy liggéeyee fii mhm. boo ñëwee vraiment dañ ciy sonn day clean parce que tam sama wotu bureau la nekk donc moo tax euh, exigence hygiène bi dafa xaw a doy waar waaw parce que tamit ay nit ñoo fiy dugg ay kilifa ñoo fiy ñëw waaw vraiment élevage daal mu ngi nii pour vraiment xam ni tamit parce que boo xoolee li tax ñu dugal jeune mal bi mhm. bàyyi fi doomu supersonique bi dem jëli doomu capaacoli xamal ni ñun tamit am na lu ñu bëgg am na bëgg <laughs> élevage baa ngi nii gars yi laqatu quoi <laughs> gars yi laqatu. waaw ah, léegi nag bon élevage tamit dafa nekk loo xam ni. Euh. boo defee lii yëpp nag da ngay xaar nga liggéey mhm. waaw moo tax vraiment yàkkamti waaw patience dak la laaj waaw loolu moom xam nañ ni loolu mooy force élevage te patience boobu dinañ ko am incha allah parce que yàkkamtiwuñu bëgg nañ daal def loo xam ni tey bu ñu nee génnee rek nit dinañ xam ni toog nañ liggéey benn loo xam ne lu wóor la quoi mm. seb bi mooy sa première sortie wala waaw bi mooy sama première sortie mhm. waaw maa ngi doog a dem foire mhm. euh, pour dem n wane juste rek exposé nit ñi xam bergerie bi waaw mais waxaguñu sax waxu concours mais daal dinañ dem wane rek li ñu am nit ñi tamit lool tam day gën a beek nekk ci communication bergerie bi waaw loolu da ciy baax parce que day baax nga génn nga génn dem xool découvrir ñëw xool say sujet voilà dëgg bu ciy dem moom moo jeune mal yi normalement mooy xool nag bële mooy dem doomu doomu ramdaan bi mooy dem waaw mais yii moom dañ leen di téye fi waaw pour l'instant da ngay defaale ay poule ay poule. waaw waaw lii tamit vraiment dañuy defaare ay mais race bi ñu choisir moy c'est des cochins. benn race française la. Mhm. donc ñun mom rek lañu utiliser. donc bo xolé ñaar yi presque yépp fi lañu juddoo parce que dañu am ben couveuse aussi. bo xamni lu ko judd rek ñun dañuy duñu duñu ñak ki wa duñu ñàkk ginaar. mais bon li mom dañ ko def juste pour suñu besoin personnel. nekkul lo xamni dañ koy dañ koy commercial voilà parce que dama ni éleveur tamit vraiment éleveur yi war nañ mëna autosuffisant ci yenn affaire yi. ay nen ay volaille même ay lapin ngi élever aussi parce que loolu dafa neex parce que tay bu fekkee da ngay élever ay race yu bari ci sa bergerie mhm. day gën jox cachet parce que bo duggee ci bergerie bi vraiment da ngay gis ni tay ñun amuñu problème yooyu yëpp et puis tamit diversité diversité bi muy indi nonu mhm. pour man tamit da fay yok élevage deug la deug la parce que vraiment gis nañ ci ay kay wa ay kay yooyu gis nga ñi ngi yooyu ngi fi macha allah macha allah vraiment lool yëpp pour diversifier quoi ma sha allah ça du yak dara tamit moo du yak dara du yàq dara hmm. ak óol bi ak óol bi nous wane aussi un cadre bi cadre vraiment. Mhm. cadre bergerie pourquoi ce cadre là. cadre comme parce que cadre euh, au delà de bergerie. nous euh, ñun une entreprise donc nous détente loisir. donc les même ouvrier gars fi fii la ñuy ñëw soit jóoy Briard man mi parfois suma amé pression trop ci liggéey bi mhm. fi la koy décharger suma ñëwé dugg ci xar yi xol mhm. wala wax ak ñom var wala jouer ben partie billard vraiment dafa am leneen dal bu muy apporté waaw dafa am soulagement bu muy apaisement dal bu muy def ci ñun donc vraiment ñun rëccuwuñu li ñu défé bergerie bi fi et puis ñëpp tamit bon bergerie bi dañ ko def comme sen bergerie mhm. motax chaque fois bo ñëwee même ouvrier da ngay gis xam bu ñu wàccee dañuy ñëw fi nek ci xar yi ba heure wàcc jot ñu dem donc lolu vraiment daf ñu gëna a rapproché

créativité bi. dëgg la waaw moom ñun tamit bon loolu lañ jéem a reproduire fii quoi. macha allah di xool beneen box bi. waaw. ok tey ñu ñëw ci maal bu mag bi maal la nga xam ne tey mooy. sa mal géniteur principal muy Ramdan. Mhm. tey lan nga a wax ci Ramdan boo ñu ko doon présenté. waaw Ramdan moom je pense que ñu bëri xam nañ ko. Mhm. Euh, parce que biñ ko jëndee ba léegi ci la ñuy doog a xam ne nag jënd nañ xar. Mhm. waaw parce que xam nga éleveur moom xamul. xamul xamul xamul borom bergerie bi xar la xam man après ci laa comprendre loolu <laughs> <laughs> donc vraiment fu xar am dañuy dem de waaw dañ fay seeti dañ fay dañ fay sawar ñëw xool ko partage ak yow uh-huh. donc xar yi daal am na benn lu mu représenté vraiment ci élevage donc boo xoolee moom euh, li tax ñu recruter ko parce que dama ni bu fekkee da nga ne yor bergerie foog nga am benn mâle géniteur parce que mâle géniteur nekkul loo xam ne dafa yomb soit da ngay fekk ku liggéey ba pare jox la ko ak yéene mm. ah, liggéey ko ko waaw donc motax vraiment ñun biñu ñëwé comme lima lay wax sank rek jarul raccourci lañuy oud rek parce que liguey bi amna ñuko liguey ba pare donc ku melni doudou mom moñu jox mal bi nga xamni moy mooy euh, Ramdan ci 23 mois di doomu Dardas Dardas mom xamna boko waxé rek di nga gis ni vraiment Dardas amna lu rafet lu muy def ci euh, Euh, ci euh, ci ci élevage. ba pare tamit bon moom yaay ji vraiment nekk ndaanaan parce que yaay ji doomu ma xusey la ak femme d'affaires donc moom li mu boole ci jeune. dafa bari ak li mu boole ci dayo ak li mu boole ci ossature. ci ah. doole. Mhm. moo tax ñu am ci yaakaar nag. macha allah parce que Maxu Sey ku ko wax moom wax. xar bu doy waar. waaw xar bu doy waar boole Nimzat beex birom jé. waaw euh, magistrat bi. ci mhm. kii fa xam nga yooyu ay sang yoo xam ne la du ay caaxaan donc ah. boo ko dajalee ci kenn. concentré de jeunes boo xam ni la tey yow war nga ci mën a am yaakaar. c'est explosif moo tax utal ko jabar du yomb. du moo tax utal ko jabar du yomb. macha allah beneen femelle bi nag bu mu ko booleel nii. waaw beneen femelle bi euh, booy xool euh, moom euh, femelle bi ñu ngi ko recruter moom ki ñu jox yaayu seex yi. waaw moom moo ñu ko jox. peut-être ma bàyyi. maas mu wax ñu. femelle bi doomu kan la. doomu doomu wàllu mbóoj la waaw. donc moom moom tamit ki ñu jox kooku mom moñu ko vraiment parce que dañu né femelle yi ci jënd rek après ñu xol mal bi nga ni né def na tour sax mal bi def na tour ah. légui waaw comme que def na tour rek dañuy xaar rek ñu ñu exactement yeen résultat lañ ci mëna am ah, ba paré tamit combinaison parce que affaire combinaison sur combinaison et puis lo a varié varié choix bi mhm. peut-être tamit probabilité yi dal bëri la ah, beneen bi beneen box bi. Ah. léegi fii kii kii daa mel ni mooy doomu Madiaye. voilà kii nag moom voilà doon wax sànq. moom la Samir jox. Mhm. kii mu ngi nekkoon ci abukan yaay ji nekkoon ma femelle bu yéeme. Mhm. tudd Samira femelle bu ngande bu mag. boo xam ni tey moom dañ ko joxoon magistrat. Mhm. mu jur kii. waa kii nag mu ngi ci troisième portem moom moo jur Euh, doomu supersonique bi ma lay wax. fële waaw mooy culul bi waaw culul moom moo ko jur. Euh, moom daan tëb na ko fi mu ne tamit. Mhm. ñu ñuy xaar am ci yaakaar parce que femelle boo xam ni la. Euh, femelle d'exception la lu mu wàccee rek et puis moom ay seex rek lay jur. trois portées yi mu def yëpp ay seex la. macha allah waaw donc ñu am ci yaakaar boo xam ni vraiment gëm nañ ni dina mën a am lu mu liggéey am tamit maal bi lu mu ko mën a dolli moom tamit. mu dolli ko maal bi. parce maal bi moom booy xool moom vraiment. Mm. il est complet moom moom vraiment il est il léegi yéen beneen yeneen famille. waaw léegi euh, tëng ba la ngay waa loolu moom kii moom euh, doomu doo surtout terminus la. waaw moom boo xoolee doomu terminus bii. waaw moom moo ko moo ko jur. waa waaw parce que xam nga waa moom moo ko jur parce que xam nga élevage tam da ngay testé. Mhm. parce que xam nga comme que am nañ ram ramdaan ñëw na. Mhm. moom kii dañ ko xaw a mettre tuuti en stand by. Mhm. moo tax tam. fallait nous tester ko tamit moo tax bi koy tester qui femelle femelles lañ ko utal rek pour mu tester ko. mais mon mot jur kii. donc moi lay wan ni moom ku ko femelle bu bu gën bii. mën nga waaw di nga gis dara. Mhm. waaw parce que terminus tamit ñëpp xam nañ terminus production bi muy def côté femelle. parce que moi ma lay wan ni tey doomu kii bi ma la wan terminus ak Mickey bi nii quoi les terminus moi papam te tamit dayo bi moom da koy indi. donc tëng bi vraiment moom am nañ ci yaakaar trop. parce que fi mu ne gis nga comme que kii mooy yaayam te moo gën yaay gi. waaw te demagul fenn. ku ne mooy yaayam waaw kon doo ko donc tey la vache tam loolu da ngay jël parce que amélioration lañu wax. donc kii comme que teste nga ko ci kii mu jox la lii bu beneen yoonee nag bu ramadan pare dinañ jël ay quelques femelles jox ko ko ñu xool exactement moom tamit. Euh, nan la la mëne. dëgg la waaw donc loolu lañ bëgg def ko ah, donc bii nii moom doomu kii la doomu doomu yalbin la moom tamit waaw moom boo xoolee am na benn jeune mâle bu nekk fële ndaw moom moo ko jur waaw moom tamit vraiment moom moo fi ñëwoon ak beneen femelle bi nga xam ne moom nga doon wax léegi dafa rafet ñoom ñaar ñoom lañu recruté ndoo quoi macha allah voilà vraiment des sujets d'exception waaw d'exception yoo xam ni ñu ngi ci vraiment bëgg nag xool naka nag la commencé combinaison yu commencé. Mhm. xam nga xar yagul xam nga avons dans 5 mois inshallah, dans quatre mois. Mhm. Euh, peut-être meun nañ faire. et puis tamit day tax benen yoon bu ngeen ñëwaaté ñu def suivi bi nga nous. gis ngeen fi peut-être dans six mois wala dans mois wala dans un an. di ngeen gis évolution bi nga xamni ñun ci liggéey nous lañ te mom lañ évolution bi. Inshallah. parce que. xar yi. Mhm. mise à jour la rek. Mhm. waaw mise à jour la rek. donc mu ngi noonu ay croisement ay croisement la ngay def doo xam li muy génnee doo xam li muy génnee mën nañ xëy suba ñëpp presse bi yëpp ñëw fii. ñëw fii pour xool benn sujet bu doy waar si si donc euh, mi ngi noonu daal. voilà incha allah donc mun nañ dellu ci. waaw ñu xool mhm. comme vraiment. waaw donc bu ñu dajaloowee pour man euh, ay xalaat yu yoo xam ne dina jëmal élevage kanam mën na mën na ci génn te dañu war a nekk fi mu ne nii ci objectif boo xam ni dañu war a dak exporter la race laadum parce que vraiment jot na man bi ñu defee interview bi laa gis ni video bi ak plus de deux millions de vues gars yi dañu woo fu ne vraiment pour découvrir ban xar mooy jar cinquante millions quarante millions parce que ci commentaire yi sax vraiment nit ñi dañu doon taxé ci lu ne waaw waaw trop de commentaires parce que ñeneen yi nekk ci yeneen pays ay Cameroun ay Nigeria ay Burkina ñu bari dama jot ay appel Côte d'Ivoire mm. Mali dañ doon bëgg xam lan mo nekk ci derrière lolu parce que tamit kumpa la parce que xar bu lo xam dañ lan la ci 50 millions lay jar 40 millions mm. nit ñi fokk ñu xam lan mo tax lan mo nekk derrière voilà légui ñun nag lolu pour ñu mën ko expliquer

il faut mu fay dem. wala salon international de l'agriculture agriculture. si si donc vraiment yoy ñu ngi leen ñaan jéego yoy wa ñu jéem ci war ko mun def dal wa déjà boy xol président Aboukan amna na bu mu ci def parce que euh, euh, salon de l'agriculture agriculture bi passé stand bi amone na stand. vraiment projeté na. Euh, sur les écrans mm. euh, la race l'adum mm. def ben sax ben historique bo xamni depuis commencement bi ba légui mm. ak ñi jël euh, saladam bi yépp vraiment man bima envoyé vidéo bi dama ko rafetlu trop ma ne ko lii nag c'est c'est un premier pas pour exporter la race l'adum donc li ngay wax noonu je pense que dinañ ci liggéey ak ñu melni ni président aboukan ba benen yoon sax sujet yi physiquement

élevage kenn du ko xam élevage kenn du ci intéressé wu donc liggéeyu communication boobu nit ñi dañ ko war a fulal mhm. parce que ñun éleveur tamit dañ leen soxla yéen tamit ngeen soxla ñu donc vraiment di remercier éleveur yëpp yi nga xam ni leen sànq nga xam ni dañuy ñëw yéene la jox la ku mel ni Samir Yunis ku mel ni Tafa Diallo ku mel ni Cheikh Tidiane Mbaye vraiment ak ah, ñeneen ñeneen ak ah, ñeneen boo limee da ngay juum mais aussi di remercier équipe bi nga xam ni ñoom laa nekkal mhm. parce que élevage wax ko keroog ma il faut gars yi tamit jox gëdd ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk di liggéey ci bergerie yi parce que emploi la élevage bergerie boo gis pour man c'est une entreprise waaw da nga ko a créer voilà voilà direct ba pare jël ay nit yoo xam ni fii la ñuy daanee seen doole ba pare maîtriser nag li ñuy def waaw vraiment am amour bi mhm. parce que liggéey moom bu fekkee borom dafa jiital passion rek après liggéey bi dafay yomb donc vraiment di ñaan éleveurs yëpp euh, yàlla defal leen jàmm parce que ñun élevage lañ am. di ñaan tamit suñu état yi vraiment lu ci melni ministère de l'élevage, gëna ñëw jégué éleveur yi. parce que secteur bo xamni le la facteur de développement la. war nañ leen gëstu bu baax. parce que parce que aliment bi cher na. cher na waaw vraiment waaw waaw aussi tamit yéen a out ay terre pour bay voilà. waaw loolu parce que xam nga élevage mom bo waxee élevage agriculture daf ci top mhm. parce que loolu yépp ay possibilité la parce que tay bo démé ay dëkk yu mel France mais les coopératives agricoles mais dañu am doolé mhm. état bi day ñëw di leen déglu parce que dañu organisé wu moo vraiment éleveur yi war nañ tamit parce que tay éleveur bo gis bu la ko waxee bu la ko waxul day joxé ñu bayal ko pour mu am ngooñ donc lolu ça fait c'est une chaîne bo xamni ni éleveur bi war na mën maîtriser chaîne de valeur bobu tay éleveur bi war na mën ñun sax testé won nañ fi ben concept bo xamni ni je pense que ci foiru saladam bi lañ jëndoon ben machine euh bo ni granuleuse la commencé à di defar propre aliment donc il faut nous nous ci yoo sujet de faire des bouleversement parce que bu ñu payez suñu bopp ah ñi nga sur enchère bi da ngay gis naal day gëna bëri tabaski bi ngi mu ngi élève donc lool dañu organiser autour de nos intérêts xol nak naka lañ ko émission découverte ñu amoon mbégte ñëw ci bergerie Cheikh Ahmed Tidiane Chérif dalal suñu grand Mouhamed Diallo vraiment ñu ngi koy remercier mm. ci dalal beeg yëpp donc ñu leen di jox di jaay ci beneen numéro découverte incha allah